rafetlu suñu ànd ak yéen ci biir Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm ci bile jotaayu xibaar ñu ànd ak jukki leen ponk yi ci gën a fës doore kook mbirum njiitul gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany ab convocation buñ ko joxoon ba mu wuy ji woon tey ca sûreté urbaine li ko waral ak lam fa jëlee danañ leen ko faram-fàcceel ci biir xibaar yi Antoine Félix Diome mi ñu dénk biir rew mi démb demoon na ci banlieue bi ne mekku ji askano fay yewoo ak jafe yi ñuy dund ci wàllum mbënn mi RTN kàdduy Antoine Félix Diome ak la mu fa jëlee danañ leen ko faram-fàcceel ci biir xibaar yi lakk gu métti métti moo amati ca marché central bu Kaolack ginnaaw ak lakk goo xam ne daal nemmeeku nañu ko fa ni kii démb ci guddi ci dimanche ji ba 22h di jot li waral lakk gi itam def nañ ci ay gëstu yu yaatu ginnaw police ubbi ci ab enquête ba ñu daal di xam ana fan la lakk gi jële jógee Kunkande muy yëkkati ay menaces jëmale ko ci comédien bi di Baba Mal ña ginnaaw nag ay vidéo yoo xam ne moom lay reprendre ngir toppandoo ki nga xam ne moom moo di Kunkande mi ñu doon laaj ana fan la nekk mujjee naa nag génn ngir dànkaafu ki la di Baba Mal de ñu jeexale xibaar li gën a fës ak tolluwaay mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé de l' action sociale amal tey ci altine yam ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août mbokk yi xarit li may di fës ci ponk yi ngeen taxee lu bàkk bi jàll ñu fam fàcce ko salaamaaleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo nañu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi noonu lañ koy dooree faram-fàccee ak njiitul gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany ginnaaw convocation bi nga xam ne euh, jot na ko wuy ji ne ca sûreté urbaine ñi nga xam ne ñoom ñoo ko convoqué te mu doon ab dogal bu bàyyeekoo ci président de la république Macky Sall li ko waral mu di ay affice yoo xam ne rek foo tourné ci biir réew mi gis Bougane Gueye Dany dal di cay nekk ngir wax nit ñi ñu bindu ji ci li nga xam ne mu di liste électorale yi boobu la convocation nag am na yoo xam ne préfet daal dina ko yëkkati jëmale ko ci njiitul gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany ba ca jiitu mu di yooyu le affiche na dal di deñ fileek 24 heures bi ci topp dafa yaakaar ne rek mën naa indi trouble à l'ordre public ndaxte dëppawul ak li nga xam ne moom moo di euh, code électoral bi maanaam Bougane Gueye Dany dafa violé li nga xam ne moom moo di code électoral bu réew mi ba tax na daal dal dinañ koy jox ultimatum boo xam ne fii léegi 24 heures mu dal di dindi yooyu la affiche ñu àddu wax ci leneen tolluwaayu réew mi ak jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund ki ñu denk bi réew mi di Antoine Félix Diome dal di dinay sol aw dàllam dugg ci euh, réew mi xuus ci ndox mi dem seeti ji ñi nga xam ne ñoom ñooy dund ci biir ndox mi rawatina démb ci diggante Kër Massar Thiaroye Azur wàcc yëmbal ak fi nga xam ne moom moo di euh, bun moom moom Antoine Félix Diome daal dina fay dem seeti askan wi nga xam ne ñi ngi dund ci ndox mi ak seen ay jafe-jafe ay promesse yoo xam ne daal ñi ngi koy def at mu yàlla sàkk moom la dal di defati ngir dinañ def seen kem kattan ba génne askan woowu ci ndox mi ak yooyu lee jafe-jafe fond force Covid 19 bi nga xam ne euh, xaalis bi mën nañoo def ab xayma bu toll ci 2000 milliards yoo xam ne njiitum réewum euh, Sénégal di président Macky Sall defoon na annonce bi ngir nag dal di xeex li nga xam ne moom moo di mbas mi lu tollook 1000 milliards yoo xam ne dugal nañu ko ci li lee di xeex mbas mi ci ab jàngat boo xam ne askan wi def nañ ko boobaak léegi dafa mel ni mbas mi dafa gën a yokku ba tax na daal askan wi laaj boobu lee xaalis ana lan la jariñ xeex mbas mi ak fan la dugg ndax ñi nga xam na ne ñoom ñoo di waa kër docteur ay jafe-jafe la ñuy dund syndicaliste yi ñoom ñi ngi xeex ngir ñu daal di leen di jox seenu payoor waaye ba léegi daal du dara ak li nga xam ne moo di wàllu mbënn mi ci biir réew mi xaalis bu takku bi ñu ci dugal itam askan wi laajte boobu boobulee xaalis fan la mujjee ak lan la jariñ askan wi ñu àddu wax ci leneen ginnaaw li nga xam ne moom moo di faatoog doyen des juges di Samba Sall ay weer boobaak léegi ñuy xaar ana kan moo ko war a waaye amaguñu ci benn ek boo xam ne daal fësal na kan moo war a wuutu Samba Sall ba tax na lu tolloog téeméeri détenu yoo xam ne daal ñi ngi xaar seenub atte wala seenub liberté provisoire ndax ki nga xam ne moom moo di doyen de juges bi leen war a atte ba léegi falaguñu ko li leen di premier cabinet d'instruction nag dafay daal di relentir maanaam liggéey bu yéex tollook juróomi téeméeri dossier ñi ngi xaar ki war a wutu doyen des juges di samb Sall lu ñu dem ca Kaolack lu doy war lakk gi nga xam ne ñu ngi koy nemeeku ca marché bu Kaolack daal dinay gën a jéggi dayo ca centre commercial Seexal Islam ba nekkee ca Kaolack ak lakk moo fa am ni ki dem bu ci guddi ca ba 22h di jot benn cantine bu doon jaay ay yére moo fa daal di tàkk bu ñu sukkandikoo ci enquête bi nga xam ne daal di nañu koy amal lii la di ab court circuit moo waral googule lakk ci seen Sénélec ak police sàpp daal di def seenub liggéey ba tax na ñu daal di def seen kéem kattan ba lakk googu sax propagé wul maanaam tasul ca biir marché ba waaye ay millions yu bare bari daal nay lakk ca li cantine ñu dem ca Saint-Louis lu doy waar benn ñaari xale yu bokk benn famille Sarr ca goxu Mbaye ca ca ba 16 ci ngoon di jot naw nag li nga xam ne moom moo di maître nageur ya nekkuñu fa woon. ñaari xale yooyu nag ci li nga xam ne moom moo di uh, bu ñu sukkandikoo ci yooyu les xibaar ñoo bokk benn famille gisoon nañu néewab uh, kenn kii ni ki démb waaye keneen ki ci des dañu ko doon wër uh, ba ci suba la ñu gis ab néewam ñu àddu wax ci leneen ñàkkum ndox gi ci biir réew mi waa Kaolack rawatina askan wa yeewoo ca Lindiane jot nañu ci seen wàllu lu tolloog ayu bés boo xam ne daal toqu ndox si tut ci seen i robinet ndax entreprise bi di Sonacos moo leen doon alimenté ci atum 1937 ba léegi waaye waaye entreprise bi dafa am ay jafe-jafe machine bi leen doon alimenté te muy jaar fukki million ak juróom-ñaar moo daal di pan ba tax naaskan wa daal yëkkati seen ay kàddu jëmale ko ci nguuru ku Sénégal ngir nag ñu gëstu leen lu ñuy dund lu metti la ndax ndox mënul ñàkk ci ab dëkk waaye ñu dem ca cigicoor gi coor lu doy waar la fa xew kawteef benn waay bu ñu fekk ci néegu benn sëriñ mu daal di xaru bu ñu sukkandikoo ci ñi fësal lee xibaar mi ngi xewee ci quartier euh, Kantène nekk ci commune bu Ndiagis ginnaaw nag li nga xam ne moom moo di Malang Sané mi ñu ne moo faatu ñi ngi ko fekk ci benn néegu gan boo xam ne moom la sëriñ bi euh, tegoon ngir nag euh, képp koo xam ne gan nga rek te ñëw ca kër ga fa ngay fanaan ca suba sa lañu koy xaar ngir mu ñëw ndekki jotuñu ko benn yoon ay appel yu takkar nase ci la ñu dem ca néeg ba fekk ko mu daal di xaru li lee di police daal na ci ubbi mën a xam ana lan moo wundu faatug Malang Sané moomu ndax ci kër benn sëriñam bu mu demoon di jëli ay garab fala mbir ma xewee ab néewam dal dinañu koy yóbbu ca l'hôpital ngir amal boobulee autopsie ñu dem ca caaroy lu tolloog ñaar téeméeri kilogramme yu yamba lañu fa daldi teg loxo mu di ab réseau bu mag boo xam ne daal dinañu koy démasquer ki nga xam ne moo nekkoon cerveau bi di Abdou Diop doon ab nappkat moom nag la ñu daal di euh, ciblé démasquer nañu ko ni ki euh, démb la loolu xew ca Caaroy ginnaaw bu ñu koy jàpp nag dañu ko daal di soupçonné woon boobule sac mu yor ko te ñaar téeméeri kilogramme yu yàmba yooyu nekkoon ci mi ngi ko génnee ci biir géej gi ginnaaw bu mu li nga xam ne moom moo di gaalam ba jamono ji mu ngi ci loxoy euh, takk deri yi ñu wéyal ba tey wax ci lu ñeel kan wi dem ca Mbour opération de sécurisation bi ñu fa doon amal ci week bi teg nañ fa loxo lu tollook ñatt téeméer ak benn doomu aadama yoo xam ne daldi nañu leen di teg loxo ginnaaw li nga xam ne nag moom moo di xeex lépp loo xam ne salte la mbuxum ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di samba boy yi ci biir réew mi itam daal dinañuy jàpp lu tolloog téeméeri oto ak lu ko toftal yoo xam ne daal ay soupçon la ñu am ci ñoom ginnaaw li nga xam ne moom moo di dañuy raxas lii lee di réew mi di Sénégal waaye ca Mbuur dafa ca rawati jéggi dayoo ndax bës bu yàlla sàkk rek ñuy dégg ay agression yu doy waar ca Mbuur euh, ngenteel ak dégerde li ñu doon amal euh, ci samedi bi ñu weesu suñu naataango samp ab laaj jëmale ko ci diggante Lac de Guiers ak Balla Gaye 2 ndax ñoom ñaar seen diggante dafa jeex am déet ginnaaw bu ñu leen doon gis ci seen ay début carrière ba léegi fu ñu gis Lac de Guiers gis fa Balla Gaye waaye démb lak doon ngénte ab taawam euh, gisuñu fa ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye 2 euh, kàddu yi Lac de Guiers 2 nag dafay firnde rek ne Balla Gaye yëg ne ngénte li ndax Lac nee na woo na ko envoyé na ko message moom ak rakam di Sa Thiès waaye du kenn koo xam ne rek dëgg na fa tànkam waaye moom Lac de Guiers rafetal na wax ji ba daal di wax sax ne xanaa dañu amul temps moo tax ñëwuñu ci ngénte ñu àddu wax ci leneen jàpp ko Souleymane Ndiaye alias Xulio di ab rappeur fii ca këram ginnaaw division des investigations criminelles yi ko jël si di waa dikk démb ca golf la ñu ko dal di fekk jël ko li waral ñu dal di koy teg loxo nag bu ñu sukkandikoo ci biléb xibaar mu di benn way boo xam ne génne woon na ko ci atum 2020 dal di koy tuddee tarixa moo taxoon li lee di procureur dal di jot ci boobule dossier ay menaces yu mu doon jot bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi xuluyoo moomu ba tax démb dal la ñu ko dal di jël si ñu des ci burum xuluyoo mi nga xam ne teg nañ ko loxo ki lee di imam Kanté dal de dina ay kàddu jaarale ko ci file di Facebook ngir exprimé wu uh, ci li nga xam ne moom moo di arrestation bu Souleymane Ndiaye alias Xulio boobu ndax nee na gisul lu tax ñu war kaa mën a teg loxo ba di ko xoqatal li mu wax lu jaar yoon la xanaa dafa fekk ne rek na mu ko waxee na la ko nit ñi uh, comprendre wul ñu jeexale xibaar yi ak tolluwaay mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé de l' action sociale Maltey ci altine yem ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru ut ci jot a def doomu jàngoro bi juróom-ñeenti nit ñàkkaat seen bakkan dolleeku ca lim ba ñàkkoon seen bakkan ñeenti téeméeri nit ak juróom ñeent fukk ak juróom ci ñu ñantre woon ci hôpitaux yu weer ba ñibbi seen i kër juróom fukki nit ñi ngi Sowétas tax ñiy sàmmonteeg wér gu yaramu doomu aadama di ci lëkkoog ministère de la santé et de l' action sociale di sàkku ci askan wi ñuy gën di woyal digle yi te bàyyi tere yi bokk na ci di takk masque laal zel respecté dandante bi te bàyyi dajaloo bi mbokk yi xarit yi lii lañ leen doon dëgtal ci ay xibaar fii la ñu koy ndar keppe dañu ñaan ngeen di woy suñuy programme te di leen ñaanal fanaanum jàmm di leen jox dig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 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da gën bu ñu góor ngóoraa